sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokk yi seen yóbbalu bis bi ak ndongoli Cheikh Ndiaye Gana mas nañoo laaj Sëriñ Tuuba xaadala wallaahu maxtaara lahu lislaam ju wóor ak taalibe gu wóor lu ci gën sëriñ Tuuba xaadala wallaahu maxtaarala fa wax ne benn baat la bu am ñaari firi nit mënta am ak taalibe gu wóor te amul lislaam ju wóor nit mënta am lislaam ju wóor te amul taalibe gu wóor siiw na sëriñ Tuuba xaadala wallaahu maxtaarala nee na aw ay foo ko dégg ñaanal yàlla mu fay ak lu mu la sori sori bul naagu ba jàpp ne mënta agsi fi yow siiw na sëriñ bay jaxate radiyallahu taala mas naa wax sëriñ tuuba xaadala wallahu maxtaarala ko ne ko war ngaa sant yàlla sëriñ bi wax ne alhamdulillah ne ko mbay jaxate lu tax nga wax loolu sëriñ mbay jaxate radiyallahu taala anhu ne ko waroo yem ci sant yàlla waaye na nga war a wër di sant yàlla sëriñ Tuuba jóg di wëreelu di wax alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ne ko mbay jaxate ana lu tax nga wax loolu sëriñ bay jaxate radiyallahu taala anhu ne ko waroo yem ci wareeru di sant yàlla waaye nanga nga war a woote ak cant sëriñ tuuba xaadala wallaahu maxtaarala ko woo mag ñi berndeel leen sant loo leen bi mu noppee ne ko mbay jaxate ana lu tax nga wax loolu sëriñ bay jaxate radiallahu taala anhu ne ko mbàkke dama xam ne ku mas ñaan yàlla ku ne yàlla saa borom subhanahu wa taala aslëf rekk la ko may waaye yow yàlla dalaa bëgg ba jëmmam la la may yàlla dalaa bëgg ba jëmmam la la may yàlla dalaa bëgg ba jëmmam la la may wallaahu alam بلا عين لنا